xam nga président Ousmane Sonko mosoon na fi wax ne justice dina taal réew mi kenn gëmu ko woon waxoon na fii nii li daam wax fii ak keneen ak keneen wax ko ne parrainage baaxul nañ ko génne suñu suñu suñu code électoral ñu bari toog di xoole waxoon na fi nii administration bi elle est chevillée au pouvoir de Macky Sall léegi leen Macky Sall sant la ñuy def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 des na tuuti le les avocats du ñu liggéeyati des na tuuti les magistrats du ñu liggéeyati des na tuuti l' administration dootul liggéeyati parce que seen njariñ kenn gisadu ko ci réew mi. c' est la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal un juge un juge jugé benn dossier joxe verdictam état bi ne du ko appliquer pourquoi. parce que ça concerne un seul homme une seule personne mooy le président Ousmane Sonko léegi bu subaa daam mii bu amee problème xam ni gars yi moom la ñuy bañ a dégg moom la ñuy bañ a gis ndax taxawaayam ci wetu président Ousmane Sonko mais bu amee problème justice du fa dem Diante sera la même chose le doyen Habib sera la même chose Maïmouna Bousso sera la même chose donc où va notre pays sans justice moo tax ñu ne.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 yi ñëw yoo xam ne dañ ko rétablir encore une fois dans ses droits yàlla kese moo mën a tax président Ousmane Sonko du nekk candidat